droit vacances yi ñëw na nga nekk en couple en famille ou groupe d'amis ngeen bëgg a passer des bons moments ma ne def ngeen tout droit villa Palmier foofu Thiat Nianing villa bi am na piscine chambre yaa nga climatisé woote leen gaaw ci 77 765 88 81. salon yeeg chambre à coucher yi ah ma ne bakkane na ah kon villa Palmier daal sa connexion yu fii gratuite la te li si gën a neex am na cuisine. tout droit bi si la final Thiékou Sow à la gauche Mboru Papadi Yada wala Ismaïla bu Palmarin à droite fii ci Palmarin samedi le 10 septembre 2022 kon si club Boucar Sène Ndamane Darou ñoo fi woon nag lañ tegal yi ak xaalis ceeb attention ceeb ceeb daan na ko Thiès jël na lamb ja Thiès jël na lamb ji